ma ne ko man li ma constaté man man maay sëy maay borom kër gi maay jabar ji mu ne ma lu tax ma ne ko parce que say say yére maa say yére maa koy fóot hmm? say bool maa koy raxas kër gi maa koy fobeere samay yére man maa koy fóot hmm? say doom maay suñ demee buñ taqee maa koy raxas maa leen di maa koy raxas maa leen di toppatoo hmm? ah donc añ bi maa koy togg maay togg maa yekk maay defar ndab li maay defar lal bi maay defar lépp néeg bi maa koy defar hmm? cuuraay li maa koy taal mu ne ma koy defee mu ne ko parce que jànq bi maa koy fay <laughs> ah mi naan bi muy fóotkat bi maay fay fóot fayal sama bopp fóot fayal la fóot hmm? raxas bool yi maa koy def ndax jànq bi maa koy fay mu raxas bool fobeerekat bi maa ko jël parce que maa koy fay mu fobeereel ma gardien bi ci buntu kër gi maa koy fay yow loo def te chaque fois may gis ñuy rek ñuy réclamer jigéen droit droit de la femme droit de la femme droit de la femme donc loolu tax na rupture wala am